même suñu fekkee bugguma dem douze nga wax demal douze damay jël satal nag. dama lay laaj ba xam man jëlu naa la ko ñu xoolal. dégg nga nanguloo ko léegi ba sa foofu sa baaraam. tey loolu maa ngi dem maa ngi ñëwaat. amit si ki jublu yàlla ma yaa li jublu. waaye yow dañ la ko war wax samba yaa ngi dem. sa dem nee nam. boo ko demee na nga góorgóorlu siiw ah, juróom-ñaari jikko yi daal ñoo bàyyi ne ma juróom-ñaari jikko yi moom kéef kéef sama xol daal seet kuy ndax dañ ne turandoo buñ la ko tuddee juróom-ñaari jikko lay jël ci ba day ñëw da bay day ñëw daal. Ah. néegu xale yi daal nga ne xam naa ne moom bu ñëwee ah mu dëkk ci néegu xale yi rek. Ah, loolu baax juróom-ñaari jikko yi nga wax nag moom. Hmm. ah bu mu jël caga rek. Hmm? ma ne bu mu jël caga lan wàcc ne aya ma bañ damaa buddi waale karaw kon wàcculoo soo wàccee karaw de du kan moo lay jàngal mi ñuy wàccee man